Touba ñoom tim ñu xëy di ñu tàggee Mohamed Boun Abdallah Dionne yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak Walfadjri ñoom tim xëy di ñu tàggee Mohamed Boun Abdallah Dionne a kaay na àdduna nekkoon na candidat ci nga xam ne moom la ñu génn ca diwaanu France fa la ñàkkee bakkanam ay atam ak ñeent maanaam 74 ans la Mohamed Boun Abdallah moo nekkoon jiite Sénégal ci élection yi nga xam ne moom la ñu weesu waaye nag loolee mujjuta sotte mu daanu feebar moom bi campagne électorale bi di jeexa ñu jël ko yóbbu ko France ngir faj ko fa yéen a kaay gi de premier ministre ba woon ma ngi juddu septembre ci atum ci diiwaanu Gossas marqué na histoire politique bu Sénégal ingénieur informaticien la premier ministre bu Sénégal nekk na ko fi ay at yu bëree bëree juróom benn fan ci weeru juillet atum 2014 ko nommé woon premier ministre bu Sénégal bi Sénégal di Sénégal ba sunu yàlla jonn tey ji Mahammed Boun Abdallah Dionne mooy premier ministre coalition Benno Bokk Yaakaar cadre bu mag la def na science économique spécialiste la ci lu jëm ci wàllum politique économique ak sociale ci université bu Grenoble ca France la ko jàngee 1983 mu am diplôme ci institut d'informatique d'entreprise école nationale supérieure d'informatique pour industrie et l'entreprise bu Paris yéenekaay gi di l'info ba tey nee na Mohamed Abdallah Dionne ginnaaw bi mu yeggalee am njàngam nekk na ingénieur compagnie IBM ca diwaanu France ci atum 1986 mu daal di rejoindre Banque des États de wooy moom jiitu réew mi fi nekkoon di président Macky a mag la Aminata Touré moom tim daan nay wax ne Mohamed Abdallah Dionne visionnaire la liggéeykat la te liggéeyal na réewam Aly Ngouille Ndiaye wax ne li mu xam ci Mohamed Abdallah Dionne nit la koo xam ne nit ko am rigueur la ci liggéey bi personnalité remarquable yéen a gii di bés bi xëy bind bun Dionne fin de mission yéen a gii di source xëy duñu xibaar naa naa ñu mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique ñëpp ay xaritu Mohamed Boun Abdallah Dionne la journal bi nag dikk na ci histoire Mohamed Boun Abdallah Dionne ak moo doon dawal ab oto yaayam ak papam nekk si oto bi accidenté yaay ji ak papa génn àdduna journal bi nee na Mohamed Boun Abdallah Dionne jëloon na benn reem daal koy jox soxnaam si nga xam ne mooy kati Dionne loolee sax bokk ci li tax ñoom ñaar amuñu doom yéen kay gi de doy Mohamed Boun Abdallah Dionne yéen a kaay gi du l'observateur xëy di ñu xibaar naan na ku xam état dem na a kaay gi di mise en point ñu xëy fekk fa njiitu réewum Sénégal di Bassirou Diomaye Faye la woon maanaam koo xam ne na réewum Sénégal bokk na si a yónnee am message jaarale ko ci soxnaam si nga xam ne mooy kat yi la nekk sa message ba daf ma doon remercier ba pare di ma xamal ne maanaam jamono ji ma ngi ànd ak wér-gi-yaramam la mu jàppoon mooy dina gisaat xaritam bii di Mahammed Boun Abdallah Dionne far yàlla suñu borom doxalee li ko neex yéen i fu xëy di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéen i kaay gi da leen fu l'observateur vox populi ñu xëy di ñu xibaar nan ñu Ousmane Sonko taxawal na gouvernement bi gouvernement boo xam ne vingt ñoo ci nekk Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal nee na de rupture la woote la woon wóor loolee kàddu yi Ousmane nee nañu mooy seeni i priorité lu jëm ci wàllum dund gu cher gi nee nañu dañu ko bëgg a daal di wàññi jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi lu jëm ci wàllum njàng mi ak njàngale mi wàllum formation maanaam wàllum tàggatoo Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal nee na gouvernement de résultat la soxla waaye tamit gouvernement boo xam ne lépp lu ñuy def lu leer lay doon wàllum transparence Ousmane Sonko nag nee na yorin wu sell la wootee ba pare ay ministre yoo xam ne dañuy jege askan wi reddition des comptes wootee maanaam képp koo xam ne dénk nañ la alalu réew mi ngay leeral Ousmane Sonko nag li mu woote indépendante maanaam yoon dafay tëddee njaaxanaay Ousmane Sonko nee na li mu woote mooy gouvernement d'efficacité Ousmane Sonko li mu woote mooy gouvernement de proximité Bassirou Diomaye Faye nee na bëggutoon a gis loo xam ne lu niroo ak cumul mandat la yéen kaay gi delegsee ko xëy dañuy xibaar naan ñu Ousmane Diagne procureur la def ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi maanaam ministre de la justice justice quotidien yor yor bi xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Diagne mii nga xam ne maanaam indépendance la amee du koo xam ne dañu koy baraj barajee mooy Ousmane Diagne mi nga xam ne maanaam kenn mënu koo këll-këllee yéen kaay gi nag nee na bu passé Ousmane Diagne moomee nag général Jean Baptiste Tine mi nga xam ne moo fi nekkoon au commandant de la gendarmerie maanaam moom la jël def ko ministre de l'intérieur kookee tamit fa ñu ko yóbbu maanaam xam na ko bu force armée moom tim miin na foofu ndax xam na armée bi bu baax a baax Moustapha Guirassy la ñu dénk njàng mu digg doomu mi docteur Abdourahmane Diouf la ñu dénk njàng mu kawe mi docteur Cheikh Tidiane Dieye la ñu dénk wàllum hydraulique Maymouna Dieye la ñu dénk njaboot ge Cheikh Diba la ñu dénk wàllum finance Abdourahmane Sarr la ñu dénk wàllum économie Birame Souleye Diop la ñu dénk wàllum pétrole ak wàllum énergie El Malick Ndiaye la ñu dénk infrastructure wàllum transport terrestre ci jaww ji ak ci suuf si Balla Fofana la ñu dénk wàllum collectivité territoriale Aliou Sall la ñu dénk communication la ñu dénk affaires étrangères Fatou Diouf la ñu dénk wàllum pêche Olivier Boucal la ñu dénk fonction publique Khady Diène moom la ñu dénk jeunesse ak lu jëm ci wàllum culture yéen gii de la Quotidien nee na gouvernement bi ñeenti jigéen ñoo ci nekk journal bi di bés bi nee na bi am na ñaari généraux Jean Baptiste Tine ak Birame Diop yéen kaay di bés di ko xibaar yéen kaay di Sud xibaar naan ñu ministre yi nga xam ne dañoo def cumul mandat benn weer ministres yi nga xam ne maanaam moom la amee maanaam ministres yi nga xam ne jamono ji ay maire lañ wala ay député Ousmane Sonko nee na nañu démissionné fii ak benn weer yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na Khady Diène Gaye moom lañ dénk ministère des sports bii a kaay xëy dañuy ñu la ñu yóbbu ministère des forces armées xibaar naan ñu gouvernement bi bëri ay kàngam bëri na ñoo xam ne ay bële ñu ay wàcc bees la ñu yéen a xëy duñuy xibaar naan ñi nga xam ne nag dañu leen a écarté woon ci système bi ñooñe nag ñëw nañu ak doole yéen a de révélation xëy duñuy xibaar naan ñu bi bëri na ay inspecteur des impôts yéen a de l'info xëy duñuy xibaar naan lu jëm ci wàllum passation de service njiitu réew di président Bassirou Diomaye Faye nee altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la bëgg ministre yëpp maanaam yéene kaay gi Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu am na nag ñenn ñoo xam ne defal nañ leen promotion ku ci mel ni magistrat bii di Ousmane Diagne ak général Jean Baptiste Tine yéene kaay gi di Source A xëy xibaar naan ñu bu ñu waxante dëgg gouvernement bi maanaam kenn ku nekk yóbbu nañu la sa place journal bii de l'Observateur xëy duñuy xibaar naan ñu Cheikh Diba Cheikh Diba mi nga xam ne moom lañ dénk ministère des finance dañu koo neexal ndax moo nekkoon médiateur Ousmane Sonko ak Macky Sall yéenekaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu général Tine ak général Birane Diop ñooñee président Macky Sall da leen a écarté woon Ousmane Sonko andiwaat leen journal bi di enquête nee na Ousmane Sonko jamono ji teg na empreinte am gi nee na bi nag maanaam ci wàllum expertise lay doxoo ndax nag bu ñu xoolee gouvernement bi gouvernement la boo xam ne maanaam ñi a